America! ñëw jël si euh, Bayna Gueye Koureychi moo ñëw jël si Bayna Gueye borom Baobab ñu nekk ci digg diggu ko ñu baat fas yéene fee yëngal ndax moomu ko fier nañ ci kanam jëm ci kanam lu muy def na ginnaaw yow demal xëcc bay naa nga indi ko ci kanam nekk ci kanam te may ma teel ma teel ma ma dem jëli ko dëkkante voilà ñoom ñett ñi ñoo war nekk ci kanam loolu la ñuy wax ah noonu. moom moom laa wax nii ba wax naa booy mu dem jëli ko booy Fapal nii. na ko jëli quoi. lii nii daaw ni mais boo ko nho, nho, nho.

mais Khoureychi Thiam le grand basketteur bëgg ñun Sonko la ñu bëgg ñun <laughs> suppal leen ko suppal ko national super national Fatima

alhamdulilah Aliou daal Aliou Aliou ña joxoon. waaw. waaw dugg ci ko koy delloo. am li ma jaaxal nee na du jaale kenn. waaw moom nee na ñemewul dëkk. waaw. <laughs> li leen ñëw leen Aïcha yaay Biliyorum belki genau. <laughs> saa yoo demee ba yaakaar ni mbooloo mi jeex na rek ñeneen dolleeku ci macha allah kon camion sono bee nekk ca kanam a kanam Wow, mau Mouhamed Sissoko victoire bi moo daal victoire Jadi vais bien alhamdulilah taksi. va tu vas bien c'est comment n'en passe n'en passe ensemble bien et papa il va bien ça va apa xamewuma la woon je t'avais pas reconnu depuis combat bi seen ginnaaw ana tonton Mouhamed ñu ngi ci jàpp saa ñu demee ba yaakaar ni mbooloo mi jeex na ndek am na ñeneen ñu ne ci ginnaaw est suñu di victoire dàqul ci victoire yi waa Baobab ñoom seen cercueil la indi cercueil bi moo ma réer

What is this?

Mali niya apa ini? Ini na yung pag nipiegin mo. Dami niya kami siya Thank you. imam

Your loss पाएंगे चिकन ना हो गिनना हो सुबह दिन चलेगा वहाँ से वर्ष यार ना लगे ऐसी कोई भी एक एक में वहाँ से वाटिका ना gannaaw baobab ànd ak euh, le frère Khourechi ak Bayna Gueye ba baobab di leen rappeler ni rek waa jooju noonu may bañ a tudd turam muy xaju balcon dañ ba ci bureau de vote dañ koo fekk si ci bureau de vote am dóor ko dóor yu métti ndulli ko ndulli yu métti kon kooku du sax borom koñam këram googu sax maa ngi sikki sàkk si réellement moo ko moom combat bi. ci loo nekk bëgg rek waaw waaw. moom rek la ñuy toog. ah. àgg fan. mënuñu jaay de école norme école police. jël Anta do ga def jël bdn bi mo gën dang koy wax mom ko seefa ko wala ñooñu ñu tax mënu ñu génn ni ci wétu école police bi mooy pharmacie seulement ah mais nañ bàyyi weer bi di génn muy benn koñ bee xawa a mais ñu ngi ni di ci génn t o Cuma kan c Thank you. avec école police avec Baina gay borom son frère Chicham l'international Chicham l'intercontinental l'international Chicham mon ko <laughs>

da ngay bëgg fecc doo mën day na bamba waaw yaa ngi sooy fecc doo ko tey sooy fecc doo ko tey Anta Dia ah. xamaguma ah. ayca. waaw mais patriote yi. waaw. tey sama xol dafa sedd si yéen. ngeen sant di leen gërëm. mooy sant waa Kër Massar. waaw waaw wax ko ci kaw. Mhm. aw ma seen fay. dëgg la. chinois yi. chinois yi laa leen tuddee waa Kër Massar chinois yi. waaw waaw. waa Touba waa Mbacké. waaw waaw mooy chinois. non mais waa Kër Masar kenn du ñëw. seen mobilisation amul bari maa ngi leen di sant di leen gërëm. yéen a ngi dégg. ñu ne xool pour bi nekk si ginnaaw. waaw waaw. ñu jëlee waa Kër Masar. mention spéciale pour waa Kër Masar ñoo jël. waaw waaw yéen a ngi dégg waa Kër Masar man mii Kër Masar laa dëkk. ñu ne waa Kër Masar ñoo jël paie. ñu ne waa Touba sant nañ leen gërëm nañ leen. dégg naa waa Mbacke itam. amuñu morom. amuñu morom. métti yi noonu la Italie def waaw waa waa Kër Massar chinois yi nekk chinois yi waa Kër Massar rek. dinañ ko dégg mais may ma boobu chinois yi waa Kër Massar ñooy chinois yi. ñu ne waa Kër Massar ñooy chinois yi. waaw kay kenn du ñoom suñu réew. waaw waaw chinois yi dañoo bari. ay ndaanaan lañu. waaw waa Kër Massar mention spéciale. waaw waaw seen mobilisation amatul ñoo bëgg Ousmane Sonko ba jàpp sax. maa la ko wax waa Kër Massar kenn du ñoom. bul fàtte waa Jaxaay. boole ci waa Jaxaay. waa Touba chinois yi. ci jaxaay ga ma dëkk. jaxaay wala waaw kay maa ngi douze maa ngi cité gendarme maa ngi douze bee ñoo jàkkaarloo mais waa Kër Masar waaw waa Kër <laughs> ma fan yaa ngi suuri rek ah maa ngi laay boobu ba léegi dama sax maa ngi laay c'est parce que ñuy suivre ba léegi dafa bëri saa yi ma bëggee coupé ma gis ñeneen ñu ñoo ko bàyyi yéen o ko jaar waaw maa koy bàyyi xel mi ngi noonu

marché national dëkk fii Amitié 3 ñu ngi àndoon nag euh, Bayna Gueye bu Baobab borom Baobab ak l'international Koureichi son grand frère comme ni ma koy tuddee l'intercontinental yi ñëwoon jubilé si diggante Baobab jàll Bourguiba jàll Karak jaar ba amitié toi. ñëw fii cité cité police muy cité école police cité bi nekk en face école police ñu avons a pause tuuti wat live bi ndax téléphone bi da xaw metti. <laughs> Ñongi live baat légui.